Iba Mar kenn waratu fi tëgg andi woon na coow promoteurs yi xalaat ci seen bopp ku nekk di kaas waaye ma bañ a bàyyi continuer waxtaan ak Pape Abdou Fall maa ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaayam ak ñi mu àndal ñuy waxtaan ba déggoo ñu ne léegi dootuñu tëggee fudul arène bi mais ñoom mënuñu demee noonu il faut ñu sargal ma ci bés bi ba pare déclarer seen bopp ne vraiment arène rek la ñu el tëggee parce que gis nañ li leen président Macky Sall defal loolu li muy wone rek mooy lépp ci waxtaan. bu waxtaan rek buntu feeñ te loolu li tax ma gën ci kontaan mooy président Macky Sall woote dialogue national ñun ñu démarrer dialogue am résultat résultat bi positif pour ñëpp muy ndamu ñëpp tey muy feet moo tax gis nga ñëpp mobiliser président fédération yi xam nañ ne ñoom lañ ko defal mbokk yi waa Fatick fa ma dëkk ñëpp mobiliser pour ñoo dem ci làmb ji. gis ne ministre Matar Ba du dicté jamais daan nañu waxtaan parce que làmb yënguwoon woon na fi saison bi passé entre promoteur yeeg CNG mbër yi.

ci ci lolu euh, ñun ci lolu lañu yar ci waxtaan téréwul nak bu waxtaan wi mënta jur jam ku ne jël say prérogative jël say pouvoir mais comme ñi ngay waxtaanal ay sénégalais lañ te gis nga ci ñom seen bëgg réew gis nga ci ñom it fulla ak fayda gis nga ci ñom bëgg développement économique et social réew mi défé naa waxtaan wi jarul motax biñu tayiwul am nañu résultat bi motax ma ci sante bu baax. am ci yow souvent da nga gis même ku bokul ak yow parti boko ko Matar ba mu nit ku bax la wala nga ne Matar mu no ku nangul liggéey la ndax li ñu ko jox kat boobu ba tey kenn ci lu ne xar manam ciofel gogu dox sa euh sa diggante ak nit ma gëna am ciofel nak ci sénégalais yi ak julit ñi ak doomu aadama man dama bëgg doomu aadama waaye tay bu nit ñi rafet lu ñi def dañ koy santé suñu borom parce que yalla rek mo lay jagleel nga def lu neex nit parce que mën nga mën sax li ngay def mën nga ko def te du neex nit kon buñu yalla yàlla président Macky Sall dénk ñu te li ñuy def am ñu ci gis seen bopp ba di ko seede dañuy delloo lépp yàlla di ñaan mu yokk ba li ñu denk dara du ci yàqu te président Macky Sall it réew mi fi mu ko bëgg a yóbbu mu yóbbu ko fa ci jàmm. jërëjëf monsieur le ministre kon Matar aate ñu rek borom bés bi mais Mame Boye tey sa doomu ndey moo xew la euh, man sa diggante ak moom xam naa ko euh, keroog ba nga xewlee euh, nga ànd ak moom teeku ci loxo tey mu xewle nga bàyyi lépp tey waaw Matar moo mel noonu xam nga ku baax da ngay foog ne ci yow rek la baax fekk ci àdduna bi yëpp la baax Matar noonu la ko yàlla bindee moo tax eh, man dama nekkoon Ziguinchor mais bés bi moom dafa nekkoon sama biir bopp may xaar ba mu jot rek te lii mooy lu gën a ndaw luñ ko mun seddal xam nga boo xoolee bureau fees ci biti fees ci saa ci suuf fu nekk ay nit a nga fa

sëñ Saliou da doon wax ne bu la suñu borom fekkee ci kaw ci suuf rek nga jëm donc nañu fexe rek wàccee suñu bopp suñu borom yëkkati ñu. Mame Boye naka Kolda Mame yaa ngi toj Kolda quoi. Kolda Kolda suma Kolda la suma maa leen bëgg ñu bëgg ma ñu moom ma moom leen noonu rek la mën demee. dama gis événement yi ñuy wax yëpp ah man dama gis événement yi ñu naan yëpp mënul possible Kolda Mame Boye def na ko. te ken fekk ko ci ànd ci la jeunesse Koldois man lolu bara man top na la ci koor gi nga seeti les étudiants Koldois dama gis ces activistes sportifs de la jeunesse Mame Boye ngi dem ci jàkk yi mu ngi seeti chef religieux yi Mame Boye est toujours infatigable quand il s'agit de la ville de Kolda wa bo juddoo fenn magge fenn yaro fenn ñu ràññee la fa lo am rek bokk ak ñom mo gën am solo man noonu lay agir lolu politique ou pas non la mos a demee donc Kolda moo moo moom moom moom Kolda ah wa mo nek sama bir xol kon nii rek mais yow nag il faut nga ñëw de. yow man ak yow. société nationale ah yow kon kii kan foogee la séeréer di. waaw ça va naka def. mer tey ñu tuddee le ministre le plus aimé de la république Matar Ba ngay kenn ci moom euh, ànd ak moom ànd bu yàgg na ànd bu rafet. waaw euh, bëgg naa si trop parce que Matar du ay mbokk parti rek Matar c'est mon frère te dafa yàgg mu téye ko mu nekk nit ku baax nit koo xam ne yëg na nit. te xam nga ñun xam nga ñun sin lañ joge maak moom yëpp lu ñu gën lu gëm mooy ku la yëg boo ñu yëgee rek jàppala moom xam na la loolu lañ ko yare loolu la xam loolu lay def yëg nit man aussi ma jàpp ko en tant que frère avant d'être un de parti avant doon leneen di ko xam ne aussi ces sports mu ngi si def lu ay jéego parce que ñun président Macky Sall la ñu àndal ku ko jàppalee ñu xam ne yaa ngi koy jàppale ñu jàpp la donc bu ko jàppalee aussi jàppuñu

Saliou non Saliou Saliou ba si ministre Chomar Saliou ba si ministre foog mu wax ci ah. waaw euh, maanaam Saliou Matar tey. waaw làmb di ko delloo. Jéeri Koli yow <laughs> bu ma rek sama xol day sedd ah Jéeri Koli wàq mi ci somb. borom Fatick borom ndakaaru xam nga euh, sama papa la sama xarit la liggéeykat la jàmbaar la waaw buur looloo ma fi indi moom lépp la ci man daal. bu may xool ci moom damay gën a am jom ah damay gën a am jom boo xoolee fi mu jógee ak fi mu agsi tey di ko ñaanal bisam bi daal yàlla na ko jik te dina ko jik sax boo xoolee nit ñi fi nekk bul xool nit ñi kese de yan yan genre nit ñoo fi nekk ay nitu valeur rek nga fi gis nit yu am valeur nga fi gis nit ñoo xam ni réew mi xàmmee nañ leen moo lay wan boo nekkee ci réew mi daal liggéeyal waaw ah, liggéey rek a wóor réussite moom 90 yëpp liggéey la waaw lépp liggéey la liggéey ko may lii tey tey la tey la waaja waxoon tey rek la tey <laughs> tey rek gis ngeen le DG des impôts moo taxaw noonu euh, Mamboy Diawo moom it tamit euh, di kenn di kenn ci Maxtaar ñu ànd ànd bu yàgg boo xam ni vraiment ñi jege ñi jege Maxtaar ñëpp xam nañ ci dara Libaas le DG le DG la waaw tout le monde est là moo nami mam booy xam nga xam nga Matar dafa baax nekk suñu mag nekk suñu xarit nekk suñu wóolal nekk suñu lépp ba pare bëgg ku ñu bëgg bëgg président Macky Sall su xewlee ñëppay ñëw parce que dafa xool baa rafet ñëpp la yéene lu baax képp ku xewlee soo ko waxee soo ko waxul mu dakk léppam dëgg tànkam ñëw seet si la jël alalam dimbali la kooku nag su xewlee gis na fii nu mel noonu lay mel te làmb ja te làmb ja wane nañ léeg-léeg image yi fees na dell Sénégal xam na relation bi ngeen am yéen ñaar tey làmb di ko delloo ñu tey nga bàyyi lépp tey ñëw wusi waaw euh, di ci am mbégte lu rëy rëy di gërëm di sant waa làmb ji yëpp waaye muy lu lu mu mérité moom Matar Ba en tant que ministre des sports li mu def ci sport bi waxuma ci benn discipline waaye làmb jeeg leneen loo mënti jël rek ci sport bi ñu ngi sant yàlla bi ko président de la république joxe confiance bi moom it mu koy matale ñu ci am ndam saa su ne ci yëpp nag ci discipline yëpp kon tey bu ko waa làmb ji tàndee ne dañ koy delloo njukkal ñun ñëpp a koy rafetlu ñëw ànd ak moom incha allah rabbi ci sargal bu rafet boobu. Mbaye ak Loum ay tey lamb yaa ngi dégg Momo Ngom pour géwél na ci micro central bi ñu passionné ànd ak Dakaractu dund lambi simple ñëw tey ànd sargal Matar Ba ñëw tey ànd sargal sport waaye tey ñëw tey ànd sargal képp koo xamante ne que da ngay dund lamb ak li ci dund kon mbokk yi ñu ànd dem jëli la l'arrivée du ministre sport Matar Ba ànd nag dugg ci ambiance lamb Assane Rey moo nekk noonu le présent des amateurs Tidiane Diécko moom mooy dugg si noonu gis nga bokk ci délégation du ministre maa ngi seen ñi muy àndal gis nga tey Sénégal kenn desul ça se voit ni que il est aimé ñi bëgg ko gis nga noonu ñoom pour géwél gis nga noonu. li mooy wane ni lu waay def ci mbaax na nga ko yokk Cheikh Omar ay le ministre est là monsieur le fii mu ñëw xam na ko fii mu ñëw tey miin na ko ndax yàgg na fee mu ngi doon ànd ak DG des domaines sama xarit Mame Boye Diao l'infatigable du Kolda waaye le piment du Sine la wax mi ci Sombe la le petit fils d'Allemagne Maba Diakhou Beye la mon ami est là mu ngi noonu miin na fi xam na ko yàgg na fay ñëw le président Pape du Fallé la tey damay wax dama kontaan Cheikh Oumar jóg leen taxtu leen walaay mu ngi noonu ñëpp a kontaan Cheikh Oumar xam na fi mu ñëw nekkul un territoire inconnu ci moom ndax na fi sagal fi làmb ay at waxuma ko gis ngeen waxuma ko du samay wax nit ñee ko bëggal nit ñee ko bëgg nit ñee ko bëgg à travers son savoir-faire nit ko bëgg à travers son patriotisme nit ko bëgg gis nga gis nga lii Cheikh Omar xoolal lii Cheikh Omar waxuma ko sama wax président nit ko bëgg miin na fii mu ñëw miin na ko jëfal na fi làmb ba noonu ko sénégalais yi ni sargalee jëf day jiitu bés jëf day jiitu bés Cheikh Omar jëf day jiitu bés wax jooju tey laa koy gëm jëf day jiitu bés nit ñaa ko bëgg walaay ndeysaan lii de la ñaan ino kii de pogum Cheikh Omar ndeysaan plan bi ci poids lourd ku nekk dina am deux cent mille. su ñu demee ci poids léger yi vainqueur ki ko gagné dina am six cent mille ku daanu final am trois cent mille ñaari demi-finaliste yi ku nekk cinquante mille. man bëri mbër boo xam ne woowuñu la nga génn ci géew bi parce yi mën a gis combat bu ngeen di bàkku ngeen bàkku ci biti ngeen mën ñi ànd ak mbër mën ngeen toog ci jubukaay yi ñu bàyyi mbër yi kese ci pour ñu tapale lamb ji yóbbu ko mbër mu ñu jàpp ne defoo bëre dañuy jël sa licence yóbbu ko TNG ngeen ko su ngeen pare ngeen continuer ànd donc looloo tax amateur yi ñëw ñu ngi leen di ñaan ñu bañ yegg foofu ngeen yi ngeen wàcce ko parce que kilifa ñu ngi leen di le dafa pour bëre leen ngeen leen kan ak kan nekkul voilà ñu def ko ci fair play def ko ci fair play mu am lu mu ngi fii moomu mu ngi fii ci biir amateur yëpp waaw képp koo xam ne d'accord ci sa verdict am na lu la règlement may Ibrahima Faye Gora Beye point léger Gora Beye point léger Ibrahima Faye Gora Beye point léger Ismaïla Diop Abdou Karim Diouf Ismaïla Diop Abu Karim Diouf Ablaye Diouf Moussa Faye Ablaye Diouf Moussa Mor Diouf Ousmane Sarr Mor Diouf Ousmane Sarr poids léger Pepe Kam Pepe Kamay Dramé Wagan Faye Xooxaan Faye Assane Sène Xooxaan Faye Assane Sène donc ñu def ko ci fair play que le meilleur gagne ñu bëre combat amateur yi seetaan ñu. ah ah ah. alo, alo, alo, alo. Yung jari kaya no kapinap gaay waaw waaw ñu leen fay baax waaw suñu teewaay yi war a rek mooy baax ku ne xam nga sama liggéey teg ba tax sama xarit la dama ko bëgg ça le je l'aime mais le président président des capitaine le taille, capitaine Hein? non non Limo est capitaine de équipe association des promoteurs. de lutte avec frappe du Sénégal. le président li nga def non il est daw yaram. Oui, ma Fille la yam déclaration là? déclaration là. déclaration là? kaay. champion nuyu naa la. nice guy mais ama ah. tey sama yaram dafa daw. Ah. bi nga dugg si amaati bu jug. waaw <laughs> waaw loolu jaadu na parce que tamit sumay nit lañu sumay waay lañ te vraiment nit ñi loo loolu la rek loolu lay fay xam naa ne bëgg nañ ma trop mais maa leen waaw. mais ama lamb ji fi tak na tak na tak. lamb tak na ama combat yu mag ba tey mënul am ak fi sama bi toll. waaye lamb nag na baaxoo loolu des fois mun a bëri dem ba ci biir yéex des fois mu yéex fin bi neex waaw mais lamb ji moom gis naa ne ay combats yi neex ay grand contre petit mi ngi fi lamb yi daal gis naa dina dox quoi. sa ñaari rakk di ay petit bàyyi ko Pikine bëgg a sonn ko grand yi kenn ki di Ama Baldé kenn ki di Balla Gaye 2 est-ce que ay combats possible surtout Boy Niang Balla est-ce que combat possible la. combat yi neex na nag vraiment presque euh, mbëri ndaw ngeen leen mën a tuddee mais du ñu ay mbëri ndaw parce que am nañ tàkkusaan bu ne tey il est ussi tam aussi ñu bëreeg seen i grand frère lamb moo leen booleeg ñoom fa la gars yi jëm amatul buntu yoon la bu ñu bëreeg ñoom waaw di leen ñaanal ku ci mel ne Ama Baldé maa ngi koy ñaanal booy ñaam maa ngi koy ñaanal bu combat bi tax yàlla may ko ci ndam. sa digganteeg Bombardier fan la ñu ngi koy dox nag. waaw mais yàlla dafa na sotteegul mais xam naa yàggatu dara dangeen ko dégg incha allah. sa digganteeg Ba la. waaw soo doomu nday soo frère di suma xarit vraiment sekki nekk ay vrai xarit nag suma frère la ah. du mbeur lama jappé du ministre la ko jappé wa parce que amna lén luñu dudd ñu dund kon kooku suma nit la diko sandi sandi njabotam bi yeba ñep ah. ñëpp ci nekk maa sant waaw. ngay tak ñaaral non ñaar moom <laughs> bu ko yalla tudé ci kan. Eh, waxal am ma. jël wala jël. <laughs> xam nga bu mu sama kër nga bu ko tass way du bu ko nangu bu ko yalla tudé dina am incha mais sama awo bi jambar aja jàmbaar. Francesco Francesco Fra wa ngi noonu Cheikh Oumar booyu njaago bi booy bi séeréer la wala njaago dafa liggéey dafa liggéey Cheikh Oumar Fra ama seen ama seen Eumeu Sène a ngi noonu ginnaaw bi mu bàkkoo ci kanamu le ministre des sports mu ngi noonu moog Reug Reug nee nañu gaañu nañ leen may gaañu nañ leen may mu ngi noonu deux champions sérères ñoom ñaar Omar Kane Reug Reug ak Lex roi des arènes Eumeu Sène monde lutte simple di ko gën a bëgg. waaw avant tout dañuy sant yàlla bu baax a baax di julli senent bi di ñaanal sama tante sama tante ak sama papa yàlla na leen yàlla xaare yi firdawsi ak mboolem jullit di ñaanal sama yaay yàlla fi yàlla bàyyi ba si kanam ak kanam ak mboolem jullit di santaat yàlla bu baax a baax di nuyu waa Caalaan Zuwaal Baasul Baasar Ñoojoor Faylia Sio ah Ngajoor ñëpp maa ngi leen di sant bu baax waa Jinda ah waa Ngajoor ñoom ñu maa leen sant bu baax di leen gërëm ak waa Thialane surtout waa Thialane ak waa Thiaray Géej aw ma seen fay. Reug Reug dafa bàyyi lu simple léegi. non bàyyi wu ma ko bu ma ko bàyyi woon di nga ma fi gis li may ñëw nii lan la. non pour bëri lu simple ñëw tax ki nga xam. bàyyi wu ma ko. yee bàyyi wu ma ko de. mais Reug Reug ban relation la am ak le ministre Matar Ba. waa ministre Matar Ba sunu kilifa la sunu xarit la tu vois kon bu xewlee tey ak surtout promoteurs yi ñoo bokk lu ñuy def mooy sunu kilifa. ñun sport la ñuy def kon mataar Ba mooy ministre des sports kon yoon la promoteur bu ñu bu ñu tëggee galaaw mel ni jukkeel ka ministre Matar Ba yoon la ñun mbër yëpp ñëw teew si surtout ku si ku si euh, maanaam parti participer quoi yoon la ma ñëw teew. rek rek fi mu jaar ak Ama Sène mooy jamono du neex ba nga uppaa jëm ko maamu uppaa jëm la maam doo ba rek moom. non Ama seen sunu grand la tu vois sunu grand la am na droit bu duggee sunu milieu ñu ñëw soutenir ka jàppale ka loolu la rek mais dara sunu grand bu ñu respecté la. bu ñu la joxoon avance Eumeu Sène. non foofu àggaguma fa. waaw ba ma fa àggee rek incha allah. suñ la ko joxoon rek la. non àggaguma fa mënaguma wax loolu. àggaguma fa. am relation bu la boole ak moom. xanaa dégg nga àggaguma foofu. non ah, ma ni non déglul àggaguma foofu. léegi ñi ma àgg nga may wax. voilà mais bu ma àggee fo ba ma waxee naa la tontu ok. est-ce que yow da ngeen am relation bu personnel yow ak moom wala. Ah, xanaa déggoo ma wax naa la ko waxaat naa la ko dama ne la bu ma fa àggee boo ma boo ma waxee dinaa la tontu ok. Reg reg, sa combat ak Bombardier fu mu toll wa xam nga ma ngi nuyoo pasa sax ah, sunu papa sunu lepp moy ni Nicolas diko wax diko ñaanal yalla yalla naka yalla indi wat sunu loxo ñaan rek nañ man wa dañ koy ñaan yalla sunu borom wat ko sunu loxo wa bam dem si njabotam wa ñew su wat lamb wa bam mo ci nekkon wa mais instant bi gisatuma promoteur mu ne si quoi voilà lolo. ko waxatul sa combat kenn non instant bi waxagun ma kenn mais maa ngi toog nekk sama ruxu di entraîné di xaar. comme Bombardier wul sa diggante guy gi lekk la. combat la guy gi guy gi guy gi dañ koy nuyu di ko nuyu di ko nuyu di ko wax lamb rek bu jeexee rek jéena sunu grand bu ñu respecté la bu ñu combat boole dañuy bëre waaw pare naa pour bëre ak moom. man man ma jaaxal gars yi ku ñu ñemeeku rek rek ba ni ba yàqu. waxoon nañ fi rek rek Sa ba sori ci mu yàqu rek rek Bombardier mu yàqu. xëy na dañuy am lu ñuy métti si loolu la rek. imatu ci yow ah xoolal rek fi làmb toll euh, guy gi dafa am doole dafa mën a bëre waaw guy gi guy gi li may wax rek laa li may wax say moroom journaliste laa guy gi bu ñu amee combat du bëre du xeex du day ñëw daanu rëg rëg xoolal bàyyi nappaate bi bàyyi nappaate bi euh, guy gi champion la am na doole te day xeex day bëre champion bu ñu respecté la sunu grand la moo ñu jiitu si làmb bëri nag champion yëpp mais dama ne la buy bëreeg man buy bëreeg man du xeex du bëre day ñëw daanu mais yow fit wi nga yor Reug Reug ba yow te li ma seetlu lépp mooy li ngay wax lépp boo ñëwee da nga koy lan la. waa mais. doole la wala galaaj la wala fit la. loolu lu suñu gëm-gëm la ak yàlla suñu borom jàppal ñu loolu la rek. ngir ne da nga ko di woon ci pungal la aay daan la jongale tëll la daan la def ko Elton sama kanam Jordan sama kanam mais lan la Reug Reug. waaw dañuy sant yàlla rek moo na ñu dara ay xale nañ waaw lu ñu bëm mbéy mbébét rek yàlla suñu borom moo ñu siy jàppale mais du dara. waaw dañ koy sante yàlla. guy daal nga uppaa jam ko. waaw na guy gi ñëw ma uppaa jam waaw incha allah. jaajëf. moo ñu boole rek ñu war a neexal làmb ji moo tax ñuy wax nii rek. waaw daal na xam ne du yomb. non waru yomb ñaari góor lañ nekku góor a jigéen de ñaari góor lañ waru yomb foofu ku la ne yomb day wax lu neex moo jë moo jë day wax lu ko neex moo gën a fii moo gën a tàng moom li mu wax sa gëmu ko. yàgg yàgg li mu wax gëmu ko laa wax. barke yàlla. ay caat yàgg yàgg ndam ñaata lay dem ak John Waar jeex na tàq. Eh. borom Lutte TV booy bii la moom moom Lutte TV léegi amateuru làmb la xool ko ba tey trois pièces la maye tey jàpp ñamburam te seddu bees leer non seddu bees leer xool aspekaay xoola grand bi nday jaay Tyson nuy naa la xool ñoom libaas xoolal sama gars yi tey tey délégation bi am doole. Evo eh, laal ma waay laal ma damay dem laal ma damay dem Evo eh, nee na ma à tout à l'heure xool Doudou Ndiaye Mbengue tey Cheikh li may wane ni que tey làmb ñëpp a wuy si ah. mooy booy lebal lebaleel ku mën a fay bor te ministre Matar Ba ku ne xam ne mën a fay bor bi tey boo gisee tey Sénégalais yi ñu ci bari bàyyi nañu lépp luñ jàppoon ñëw wu si ko parce que les artistes les gis les professionnels de la ku ci mel ni El Hadj Ngagne kenn du moom ci man dama ko ñaanal buur géwél yàlla guddal fanaam te wéral ay cëram bu baax a baax ndax buur Matar day nit ku baax te yow seede nga ni tuddee nañ ma làmb ñetti yoon waaye saa bu may ñëw stade moo jàpp ci sama loxo indi ma loolu nag su koy defal rafet na ci man may as gor ma delloo ko loolu ndax mbir mi timbax rimbax la li ma lebal nag laa ko fay si mu ngi noonu li ma lebal laa ko fay si gis nga le DG la 2STV El euh, tamit mu ngi noonu ñëw ànd ak une très waaye gis nga tey ñëpp ko wuy si ah tamit di kenn ci les acteurs de la lutte ànd Dogo. moom itamit di kenn ci la ministre Matar Ba mu ngi noonu gis ngeen maa ngi seen géwélu ministre Matar Ba mu ngi sogom ci soiru Sénégal ay promoteur yu dajaloo di dernier journée bi ñuy tëgg fii tey jagleel ko la ñu ministre des sports. waaw mais kontaan xam nga man promoteur yëpp samay xarit la ñaa ah. te mbooloo mooy doole te suma sañoon promoteur yëpp bokk ndey ak baay gis nga tey ni làmb ji rafete aussi bon soir le vendra parce que gis nga tay lañuy tek fi hein ah ubbi ak ubi la bon drapeau ministre Matar Ba ñu ngi siy contane ñu ngi siy sante yalla yalla nañ ko defaat dewen ci barke yonent bi yalla job ala Alaaji Lamine le DG des domaines mambo Boye Diao ci watu ministre des sports mom tamit d'habitude bes yi nga xam touré nañ ko fi yëpp ci bari ñom ñaar ñoy and ñëw fi di wone ni que ñoo bokk parti waye en même temps

non ñun ay xale lañu dañoo toll ci bëre dañuy bëre rek. tey gis nga tournoi bi ni mu bindoo mën nañu wax ni que champion yi benn Cheikh Tidiane Niane la fekk Franc est-ce que na ay chance jël tournoi am na ay chance jël tournoi bi. na ay chance yu jël tournoi bi. ah loolu laa ñaan yàlla de. oui. ci naan ah ndaanaan yaa ngi fi de xaalis doo ñoom bokk la daa yëpp a yàlla rek moo mën yàlla ma ko yàlla may loolu tey ku ne xam na ni parcelle nga dëkk. waaw yow Franc bu ngeen dajee final. dañu bëre. lam bëre la. amul mayante. lu ñu maye. bu doon mayante ku ne toog sa kër. waaw. mais Gora fu mu toll. ginnaaw bi mu jugee ci combat bu mu ba tey muy combat bu bu des ci xolam ba tey Gora lu ne ci kanamam. waaw maa ngi déglu rek am na ñu may wax suñ d'accord rek incha allah dinañ bëri incha allah. comme kan. yi rek xam nga mbëri moom mooy loolu. mais gars mbëri rek. ñu mel ñoom Forza ak yooyu. ñoom Forza waaw. Obeuly tey participé ci tournoi bu mel nii. waaw mbër yi fi daan yëpp tey am na foo jaar ñoom. ñoom Franc wa ngi à côté. tey Obeuly est am na chance ci tournoi bi. ñun amuñu ñuy ragal. barke Serigne Touba Mbacké di ñaan yàlla may ñu ndam rek. mais bëre dóor bi gars yi dañ la ci sentir. ba tey lan la Obeuly la. ah moo ma jaaxal barke Serigne Touba xam nga gars yi bu ut. te mbër muy compétir moom mooy woowu. du neex affaire mais nag incha allah rabi am nañ yaakaar fan yi quoi. Jackson mais si digganteeg Serigne Ndiaye combat la bëre bu neex. nga réglé ko mu jeex. barki Serigne Touba Mbacke Serigne Ndiaye bu ma jegee rek xam ne ma ak moom dafa am mu mu demee. man yéen ñaar xam naa ne am na nu mu demee yéen ñaar mais bëre dóor rek ko mën a réglé. bëre dóor kese ko mën a réglé te ñi nekk sama ginnaaw dañoo bëri combat boobu ku ko tëgg nga gisu garaaw. Serigne Ndiaye ëppal. Serigne Ndiaye ëppal doy waar a ngi noonu. da a jóg. waaw sant yàlla rek. dafa mel ni séeréer si dañu sentir ni que actuellement yaa jël champion ci lutte simple. waaw loolu moom dafa leer mais lépp yàlla la maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen di gërëm waaw. mais ñoom Franc ñu ngi fii ñoom Obali ñu ngi fii est ce que Cheikh Sène ñaan jàpp mën na jël trois bi. incha allah dama koy jël bu soobee yàlla lu ci kanam rawul boot lu ci kanam rawul boot. mais Cheikh Diagne li nga wax foo ko teg. ni nga ki li mu bugg a lekk da koy fekk si. lu mu bugg lekk da koy fekk si. Eh, waa lii neex na waaye eh eh Cheikh Tidiane Niane nee na nit ki naa ko lu ma bëgg a lekk da koy fekk si Amanhã não nono. Boy Niang sànq ku ne xam ne bi dafa xaw a xat li la ñu bëggoon mooy nga toog ñu waxtaan présence su Boy Niang tey ci bés bu toll nii. moo tax man la mbir séeréer fu pire man doomu séeréer laa sama papa séeréer la yaa ngi dégg tey nag ma daal ba xam nga ñoo mbër yëpp am relation bu naaj ak moom mu am bis ñu tuddee koko ñu ñëw pour bëggal amateur yi sama mbokk séeréer yi ñëw seeraan lamb waaw. tey Boy Niang ci lamb ji bu ñëwoon salaamaaleykum. Balla Gaye tëll ci làmb ci tey nan lay demee. waaw mais làmb ja xam nga. damay waaw mais amul ragal am <laughs> bu ñëwoon moom xanaa day xanaa comme suufa ngi fi arbitre ngi xanaa dañu koy may rek ñu laale ko benn yoon. waaw mu jeex waaw kom coono bay na. dégg nga sorteem. Ah. wax na aborder ay sujets yu bari du ma ci dellusiwaat. dafa da nga jàpp ni Balla dafa bëgg a teggi. non du ay teggi sax moom la. am na droit wax ku ko mu bëre quoi loolu moom xam nga garaawul le mu bëreeg Boy Niang mu ñàkk a bëreeg Boy Niang man xale laa maa ci làmb damay continuer suma yoon su ma bëree woon ak moom damay continuer sama yoon su ma bëree woon ak moom damay continuer sama yoon. mais moom nee na bañul bëreeg yow ndax bàyyiwu fi kenn. waaw noonu la demee man tamit làmb laa bëgg naa bëreeg moom champion la bëgg naa bëreeg yeneen champion amul benn problème bu ñu waree ñu bëree bu ñu war a bëree duñu bëree mais le fait que la benn affaire boo xam ne Balla ko dégg ci ko xalamal di ko wax lii moo ko

cappaacool bi ngay waxal nii bu jeexee rek jeex na man it kaatu bi naan bi sax léegi amatul dama koy diw. mais booy ña. amul nit balaa koy diw ah, balaa koy tëdd ci koom wala nga koom diw ko ko waaw loolu la sax léegi. Balla Gaye qualité wax ci mbër yëpp a ngi ko gis mais gisuma qualité am. gaaw na mën na xeex benn combat am ju mais loolu yow rek ko gis ak ñeneen ñu ko gis mais boo ñaa gisul loolu boo ñaa gëm na ne xale la day entraîné gëm na boppam Balla lu mu wax suñu ay mag wala suñu ay papa ñu waxagul ko kaar bi bu fekkee wax bi moo koy meroon nañ ko wax. lan la wax sa papa sa ay papa wax ma sama ay papa non wax ma sama papa dama ne lu mu wax suñu ay mag depuis 2013 ngeen nekk ci làmb di ko gis mu wax ko suñu ay mag wax ko ay taay ay baabooy ci foo ci ree mais ci làmb quoi ñun waxagu ko waxaguñ ko kaar bi donc làmb la bu ñu waree waxante dañuy wax su waxee jox ma damay wax delloo ko loolu rek amul benn problème. dañoo jàpp ne waa Géej waaye fayaguñu bor ba tey mais sa combat ak la guerre ñoom dañu jàpp ne que dafa feeñal ay fayu booy ñoom. waaw incha allah léegi fayu yooyu dañ ko exploité amul ak ku ko neex rek ñoom waa Guédiawaye dañ koy exploité lamb la daal lamb la ñu ngi ci lamb ay xale lañu ñu ngi bë ñu ngi góorgóorlu bu ñu bëree ak moom dañuy bëree bu ñu bëree ak ñoom dañuy continuer def suñu yoon mais le fait que mu toog le fait que mu toog wax jëmale ci Boy Niang man damay wax delloo ko loolu bu jaaxle avec la manière rakam daan ko avec la manière moom la de mais l'essentiel moom la de l'essentiel ñu bañ a guddal comprendre nga ay xale lañu ñu ngi ci lamb moom am na droit bëree ku ko neex parce que champion la amul benn problème ñun aussi bu bëree ñun dañuy bëree bu bëree ñun dañuy bëree lamb la ay xale la ñu ngi ci du góorgóorlu loolu la loolu loolu laa am ci lu ma ci wax bëriwul maa ngi bëggee ñëpp di leen nuyu gis naa gars yoo xam ne ñu ngi ma doon woo comme ay wasaare xam nga waaw bu Dakar Actu sama ay frère ñoo ko moom ñoom daal yi maa leen di bëggee bu baax di bëggee ñëpp waaw di wax ni bu jeexee rek jeex na waaw incha allah jaajëf damaa mer na lu xew Cheikh Omar li foog ma lijjanti ko foog ma lijjanti ko kaay kaay Tapha Tine bu ñu mayoon ñaari baat ma jël Tapha may ma ñaari baat Tapha ñaari baat Tapha Tine ñaari baat la grand champion ñaari baat ndax keroog yoof maa nga foon tey maa ngi fii c'est la deuxième fois rek rek di la di la dëkku c'est la deuxième fois yoof maa foon tey maa ngi. non non non no du tout amul benn problème. parce que mbër la même bu fekkoon ni que du sa man man nga dëkk ma nga ñàkk ma dëkk man du ma tudd turu kenn. c'est normal ñoom fa fii ñu toll ba mu fay toll c'est comme sa dañ leen koy nangul len rek laa di ñaawlu Pape Dufal mi jàpp loxoom ba ci moom dama demal dëkk ba loolu rek laa ci ñaawlu ñaawlu ma ci leneen. mais Pape Dufal bu bëggee sama combat am na neneen nu muy taxaw lu nii parce que teg na sama combat ak Boy Sey man dama am financeur am staff bu may waxal pas combat toog na ci plateau wax la muy wax xam nga bi passé ni xam nga bon mbére muy tudd man bëriwuma ak ñoom du deeg man du moo asafura du ma du ma bëre ak mber wala nii wala nee ñoom ñëpp suma adversaire lañ du dëgg man toujours damay ouvert ci côté bu nekk ku ma lam boolal bu jaadoo damay bëree ak yow. mais nag dafa lii aussi baax na parce que euh, demoon nañu maanaam tey gis nañ ni que tey maanaam soppe tey bi nga duggee stade bi ñëpp a jóg. loolu am na lu mu signifié kon na mën nañ sa combat. lépp lépp sant yàlla la. lépp sant yàlla la ñun ay sportif la ñu neewatuñu xale ci làmb ji. donc ñu naan def nga quinze ans seize ans de carrière bon mën naa ne ay grand lañ ci làmb ji léegi kon alhamdulilah. rajo bi jàpp ne kon rek dañ ko bëgg a buutal yoon moo tax ñu bëgg ko jaarloo fi. yaay tudd turu kenn ba léegi man du ma tudd turu kenn man su ma su ma su ma kii quoi samay adversaire jàng Balla Gaye la Gris Ama Bombardier bu bëggee moom may ko revanche surtout mooy sama quatrième position bu bëggee moom mooy bëgg nag noonu la demee non xale bu liggéey ma bëri ak yow. voilà xale bu ma bëri ak yo mais rek liggéey non bu tudd ma voilà mu ngi noonu. jaajëf Tapha. non tooñu ma lambu la rek tooñu ma de. keroog def nga ko defal naa nga man tooñu ma. lamb bu doon woon lamb du ma ko dëkk n'est-ce pas mais tooñu ma lamb moo ñu moo ñu boole ma ñëw dëkk ka loolu la rek bu meree nag moom la concerné ma sama yoon ne aussi lamb moo ñu boole ma ñëw ma doon ma ñëw dëkk ka. moom bi mu génnee dafa nanguwul sax tudd sa tur dama ni Pa Odou Fall moo ko tooñ ndax dama ñëw di bàkk Pa Odou Fall jàpp ci sa loxo ne la rek rek dëkk ko est-ce que comment Pa Odou Fall la koy tooñ maa nga jàpp si loxoom yóbbu nga ba si moom nekk suñu combat daa war a ne ma ñëw dëkk ga bu mu tooñ Pa Odou Fall ok Pa Odou Fall maa nga fekk fii jël ko yóbbu nga loolu la mais lambu la lamb ñu boole. mais doo bàyyi déglu non non defal attention xoolal bu doon woon lamb du ma ko dëkk nañu waxante dëgg n'est-ce pas lambu doo bokku lamb sport lay def ma def sport man na maa saay saay maa ko ëpp sport bu may def n'est-ce pas maa ngi si beneen sport man mais la am naa droit ñëw dëkk ko lamb la lamb ñu boole. mais ku la jox avance tabatin rek rek sa digganteeg yàlla nga fanaanoo ko. bi muy wax naan tax sirib bu bu sama combat du ma wax ay tax sirib xam nga Balla Gaye da kay noon nin bat man xam nga lu ma koy indil waasinteur yi yabay xam nga waasinteur yi yabay loolu laa koy indil voilà. faalewu ma punkal yàlla sunu borom kenn ku ne daa am lu mu la may si mbëri man yàlla sunu borom dama moo ñaale mën a bëri punkal te moom si moom laa koy wane pour mu laa koy gën a wane na ñëw ñu bëree làmbu la jéem

woo Boy Faye ne ko ñëwal pare si demi-finale ndax dafa ubbi ñaari xale yi sangoo nañu pël bu rafet eh la ay lay laloo tànk ba yar na ko daan na ko waaw daan na ko daan na ko la ilaha illallah bi final la dem na dem na final deuxième demi-finale Ama bu Ngunjaan Abdou Aziz Diouf la ilaha illallah nation ngay kik boy fay ci beneen wàll ga franc wóor na ndomba ki nga xam ne moom mooy pakala pakala ak franc pakala ak na ko ndomba ah franc daan na ko Franc la pakala Boulam Sarr émi François promis encore en finale Boy Faye min Mbine Gay ki moo bu ndaw bi moo daan bu mag bi ndeysaan ndeysaan gis nga loolu bu rafet boo gisee bu ñaaw bi rek wax ma pël ah buur géwél pël bu ñaaw la <laughs> non non séeréer du ñaaw day rafet nag pël waaye pël pël waay séeréer day rafet waay xanaa gisoo ma ni ma rafet ah Boy Faye jël na ko Boy Faye jël na ko min gay ki bañ na ah min gay ki wóor nañ la ndomba daan nañ ko Boy Faye daan na Mbine Gayki l'enfant chéri de Mbour waay ak Boy Faye ngi nuyu waa Ngunjaan ak li ko waa Mbousnaax final poids léger final poids léger Iba Mar Diop vingt et une heures quinze minutes ci sunu montre eh Ama bu xale ba nga koy lonk tànk mu bañ Ama jàppoon nañu laay laay lala laay laay lala daw na ah ah ah arbitre ne cameraman Dakaractu maa ko wax man pël bu rafet ragaluma loolu. pël nga ni ragaloo loolu. Bpactu Mouhamed dafa ne. waaye Baol TV. Kader dafa ne. lépp fii lay xewee. maa di ci wax. waaw waaw Franc Boy Faye. ñaari xale kenn mayul dara. ku ci nekk nee na sa la may dara. te loo may ma nekk dem nga say mbokk ñu conseil la. Paul daa mel ne affaire bi du yomb. déedéet war ta yomb. Franc peese na booy fay. mais bi ba day jeex moom. loo ci mënta dégg day jeex de. day jeex. naxaat nañ ko pël. waaw waaw. naxaat nañ ko bii mu bii doon du rëcc. bii moom gëmuma mu rëcc. bii tet tet tet tet mais Boy Faye mi naanaan la de. rëccaat la pël. pël Boy Faye rëccaat na. Boy Faye rëccaat na. amateur yi kontaan nañ. laay lay la na. man foogoon naa Franc ku war noom ba daa daa mën a féemu. moo jaaxal ñëpp. waaye toogal. jàllal ne le dimbale ñu baalal ñu xool nañ ko nguufaane pël lañ dem gis naa Babacar waa ji nguufoon nañ ak atawaat jeex na jeex na jeex na Fara jël na lamb ji Fara jël na lamb ji